ku wàcc ñay xeeb na gëlëm ku aw fasaaxa ku dër adduna jeex na ba taraas akum lëndëm ku deeti raas ku mel ni Mansoor ci palaas dootoo ko gis njëkkil sa ñu baax ñëpp ngi yuux ngir weer wu mat do dafa suux jantu nga ne ba neena mariix ku jooy nit gis lu ko jar ana soppay Mansoor acca ñu baax ñëpp ngi yuux ngir weer wu mat dafa suux jantu ngëneel ba neena meriix ku jooyut gis lu ko jar aduna jeex na ba ni taraas akuk lëndëm ku dee tiraas ku mel ni Mansour ci palaas dootoo ku gis njëkkeel sa kër miskin yi nee xalaas nun fu nuy jëlee te ay palaas bu ñuy seetal deuxième classe te may ñu can ju yóbbal alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin sayidina muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin nuxayikum jamian bi taxiyati alislaamiya naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala mbokki julliti mbokki àdduna bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar leen ndokkeel di ñaan suñu borom subhaanahu wa suñu kàddu yàlla na fekk ñépp ci jàmm jiital nuyoo bi ci alxalifatul am di taaifati tijaaniya di seex seydi aboubacar si mouhamadunil mansour ayyadahu llahu wa nasarahu wa ñu ñaanal ko yàlla moom xalif général Tijaan Serigne Babacar Sy Mansour yàlla dolli ko wér yàlla dolli guddal fanam waaye yàlla dolli ko may tal li nga xam ni moom la sumb te muy ay sumb yum fi fekk ci lislaam bi ki nga xam ni moom la yàlla yónni woon ci jaam ñi muy xayrul bariyati sumboon ko waaye borom tariqa bi di Mawlana Cheikh Sidi Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu sumboon ko maamam yu baax yi ba ci maamam maam Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu wuutu woon ñaar ñooñu muy Cheikh Seydi Ahmada Tidiane Chérif ak sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sumb ya ñu sumboon yépp tey yàlla def Serigne Babacar Sy Mansour ñëw yëkkatiwaat sumb ya di ko def comme na ko maamam daan defe wuutu woon ci sang ba sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye wuutu woon ci sang ba Cheikh Seydi Ahmada Tidiane ñu ñaanal ko yàlla sumb yooyu yëpp yàlla na yàlla may ko ba mu àggale ko waaye bii nga xam ni moom la def fii ci kër maamam te muy jumaay yàlla ndax wa anal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada jumaa ji nga xam ni maamam maam Cheikh Sidil Hadji Malick moo ko tabaxoon fii ci Tiwaawan bi mu koy tabax booba boobu 1902 la jumaa ji àgg booba ñi fi mën a tabax jumaa yi wala ñi fi ñimee tabax jumaa bariwul maam Cheikh Sidil Hadji Malick tabax jumaa mu àgg mu ubbi ko julli ko ba mu koy julli wax nañ ni aljuma ji muy ubbi jumaa ji ñaari rakkay ajjuma mu ngi ko jaaj jullee sóoratu yaasin sóoratu yaasin la jàng ba mu xaaj mu rukkoo sujjóot siwaat jàngaat faatiha àggalee la des ci yaasin bi loolu ñii nee nañu 1902 la ñii ni 1904 kon da ngay yëg ni boobu muy ubbi jumaa di ko àggale ba mu noppi booba tabax jumaa àggul yombul woon waaye booba tabaxoon na jumaa ba jumaa ji àgg gannaaw gi nag maam Cheikh Hadji Abdoul Aziz Dabakh wax ni ku yokkul yaa wàññi daa di bàyyi jumaa ja baayam tabaxoon laalu ci dara tey ba tey jii ñuy wax boo demee ca jumaa ja na ko maam Cheikh Hadji Maag tabaxe woon ba tey noonu la mel amul fisiir dara yàquwu ca tiwil ya nga xam ne moom lañu ñu teg ca kaw maam Cheikh Hadji Malick moo yónnee woon ca boobu jamono maam Abdoul Hamid kan mu yónni woon ko France mu demoon jëndi tiwil ya indi ko tiwil yam fa tegoon ba tey tiwil yooyoo fa nekk benn tiwil tojul xoosuwul dara nekku ci maam Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz Dabakh nag daal di bàyyi jumaa jooju ci wet gi mu tabax ca beneen jumaa jumaa jooju nag moo àggul woon waaye maam Cheikh Alhaaji Malick moom jumaa ji mu tabaxoon ak àggoon na ba mu julli ca ba te tey ilaa yomina haza tey boo demee jumaa ji na meloon ba tey noonu la mel waaye yàlla dogal maam Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz Dabakh yëkkati woon beneen jumaa yokk ko doon ko tabax jumaa jooju nag tey moom la xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour di àggale ñu ñaanal ko suñu borom subhaanahu wa taala yii daal yàlla yaa ko am mooy fekke yow yaa ko am yow yàlla waaye wér yaa ko am tal yaa ko am ñu ngi lay ñaan yàlla nag ñu ko mayal Serigne Babacar Sy Mansour ba mu fekke waaye wér waaye tal ba ànd ak ñun ubbi jumaa ji bu ci àndeek ñun it yàlla na sumb yeneen i sumb ànd ceeg ñun àggale ko ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam barke baayam Cheikh El Hadji Mansour mi ñuy bëgg a waxtaane barke ay baayam yu tedd yëpp waaye barke maam Cheikh Seydil Hadji Malick ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaye di leen nuyoo fii ci kër gii nga xam ne mooy kër xaw mi macha allah boo fi agsee daa fi fekk Alioune Racine Ly macha allah muy kenn ci njabootu Cheikh El Hadji Mouhamadoul Mansour bëgg lool Cheikh El Hadji Mansour te nitu yàlla mu jur la ak mu bañ laa jur moo ci yem. boo bëggee jariñu ci moom rek da koy bëgg boo ko bëggee danga nga jariñ ci moom kon ñu ngi nuyu Aline Racine waaye di nuyu macha allah mbooleem ñu ngi ko seqal ñëpp nuyu imam Mouhamadul Bachir Mbay bi nga xam ni suñu mbokk la suñu frère la suñu lépp la yàlla dogal ñu ànd bàyyi ko Cees ñëw ngir yàlla ak taxawu tariqa bi waaye taxawu diine ji ndax ku xam maamam alxaaji Baye Mbay xam ko digganteem ak Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil tey wëyjuram di alxaaji Mouhamadul Abdul Majib Mbay mooy xaadi bu Cees loolu la yàlla dogal waaye mu nekk fa na yàlla bëgg ci diine mu koy àttee kon ñu ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yàlla na yàlla doolu ñu sutura yàlla lu ñu tawfiix ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf suñ doon laaj kanay cheikhul xaw mi doo ko laaj nit ñi wala doo ko laaj sa jëmm yi dangay dem ci ay palaas dafa am benn boroom xam-xam bu ni lahu minallaahi fadlun laa yuqaasu bihi sal anhu ahlal huda wasma bi raddihim in chita sal yaa axi zihil qiraa ajalan tiwaawanan wa dakaaran gent paatehimi aw kawlaxan wa kaza ceesan wa saalumuna kaza jolof asluhu fil ahli laa tahibi dafa am benn boroom xam-xam dañ ko laajoon kanay cheikhul xaw mi muy Cheikh Xaaji Mansour mu ne bu ñu lay laaj kanay Cheikh Alhaaji Mansour in shi'ta sal yaa axi zahil zahil nee na boo ko bëggee xam ci lu gaaw da ngay dem nga laaj ko ay dëkk ci lu gaaw nee na boo ko laajee bul dem na nga toog ci ñoom was wasma bi raddihim yi nga déglu lañ lay delloo ci ay tontu ñu ni ko yan dëkk lañ koy laaj mu ni Tiwaawan da ngay dem nga laaj ko Tiwaawan gi mu juddoo maam Cheikh Alhaaji Mansour mi ngay laaj doomu maam Cheikh Seydul Haaji Malick way juróom jigéen mu ngi tudd maam Safiyatu Ñang papaam maam Cheikh El ak maam Safiyatu way juru maam Safiyatu bu jigéen ak way juru maam Cheikh El Hadji bu góor ñoom ñaar bokk ndey ak nga dégg waykat naan ko Alaaji Malick moo la mooy seen dijaay te moo la juru maam Safiyatu Ñang bu jigéen muy soxna aram bonko si moo jur soxna Safiyatu Ñang ak maam Ousmane si bi nga xam ni moo jur maam Cheikh Seydil Hadji Malick seen ñaari baay ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay kon dangay ngay yëg ni Cheikh El Hadji Malick mi baayam ndijaayam la waaye da ngay yëg ni soxna Safiyatu Ñaŋ mi yaayam bàjjanam la tax ma koy wax may wax ni Cheikh El man Mansour baayam mooy ndijaayam yaayam mooy bàjjanam kon ñaar ñooñu ñoo ko meññ kon ñaar ñi ko meññ ñoo bokk lépp ci biir ak ci biti mu ganee jamono dëkk bu ñuy wax Tiwaawan 1900 la ganee jamono 1900 boo demee Tiwaawan nga laaj ko kanay Cheikhul Xaw mi dana la ko wax moom mooy Tiwaawan la soo demee laaj dëkk ba parce que fa la ganee jamono 1900 maam Cheikh Xaaj Maag dafa samp Tiwaawan 1900 la ko dafa la fa dal booba nag daaray Njaarnde jeexagul ndax Njaarnde juróom-ñaari at la fa maam Cheikh Xaaj Maag def 7 ans 1895 la dem Njaarnde 1902 la daara ja jeex. waaye 1902 1900 ci boppam la samp Tiwaawan jël kër gi indi Tiwaawan bàyyi fa daara ja pour mottali mission bi ba mu indee kër gi Tiwaawan nag ci at moomu ci la fa maam Cheikh El Hadji Mansour ganee jamono juddoom wax nañ la li ci xew maam Cheikh El Hadji am na ñeenti mag yu jigéen moom mu doo ko ganee jamono wala juróomi mag sax yu jigéen ndax moom ñett rek la mag. te yaayam yàlla dogal na ni juróom ñetti bant la am ak maam Cheikh Sidou Hadj Malick waaye lu tax mu yeexa a am góor am na lu ca xewoon lu fi xaj waaye la fa xew la ca xewoon mooy jolof la soxna Safiyatu Ñang soxna aram bonko moo ko jur aram bonko muy njaay muy njaay biram xuja tamm biram xuja tamm dinaa koy wax dafa am ku mu bokkaloon ku ñuy wax tamm compas ak pan compas ñoom ñaar ñoo bokkoon ndey ak baay am lu xewoon seen diggante kii nekk buur ba jolof jigéen bi su amee doom bu góor doom bi bu juddoo day nekk buur ba jolof waa jolof bëgguñu waat buur ba jolof kon ne ci ñoom ñu daje ñaan yàlla la ca xew ba ñu ñaan pour askan woowu ji góor bañ caa juddooti yàlla di dogal ñaan nga di nangu ay jigéen di ci judd ay jigéen di ci judd jigéen di ci judd ba maam sa feetu ñaan gane jamono ci askan woowu yàlla boole ko góoru yàlla bu ñuy wax maam Cheikh Seydil Hadji Malick maam Cheikh El Hadj Malick nekk ak moom yàlla may ko ay doom yu jigéen moom maam Safiyatu faat soxna faat sey taaw soxna Asiyatu topp ci soxna Umu Malick topp ci soxna Roqoy topp ci maam Cheikh El Hadj nag dem ba dëkkmal yëg ni jamono ngi dem soxna Safiyatu mu ngi am ay doom yu jigéen rek te ñaa am na lu ñu ñaanoon maam Cheikh Seydil El Hadj Malick mi nga xam ni nag wax naa ni wax naa ni ndéy li ndéy li ndéy li kusaanaar la te El Hadj ci àdduna boo doon wër ku tolloog moom ci wàllu yàlla ci jamonoom doo ko gis bul dem ci nit ku ñuul doo fa gis ku tolloog alaaj maag ci wàllu yàlla bul dem ci nit ku doo gis ku tolloog seedu xaj yàlla bari na ku maam Cheikh xaj maag jël teg ci saka teg ci kanamam ni mooy kilifaam daf ko respecté waaye bu ñu dindee faveur teg mérite alaaj moo lay raw kenn dabu ko kenn ku yàlla bind ci jamono moo xam nit ku ñuul nga moo xam nit ku weex nga kenn dabul góoru yàlla boobu ñuy wax maam Cheikh Seydul Xaaji man kenn dabul ba ñu ñaanee ba ñaan nga nangu ndax ñeneen ñu dul maam Safeetu ci askan woowu ay jigéen lañu am wax nañ ni sax ku ca am góor góor ga nga am sax melul na la gënal maam Cheikh Xaaji Maag dem ba xam nag ñeenti jigéen judd nañu mu ni kon ñaan gaa ngi bëgg a nangu maam Cheikh Xaaji Maag wut ay mag ci magam yi ko yàlla boole loon juróom ñaar la ñu woon mu teg leen ni leen damaa bëgg ngeen ñëw ñaan le ma yàlla mag ña daje di ko ñaanle yàlla bañ koy ñaanle yàlla nag waxu leen lan la bëgg waxu leen ko ñuy ñaan di ko di ñaan ba gis maam Seex Seydi Xaaji Maalik muy ñaan yitte ji ci def te yitte moom ci leen rek la ko def mooy pour doon gor gor set wecc ala himmati fajal ilahi aliyatan li an sirtu xudan xaalisan ku la wijati waaye mag ñi gis yitte ji mu ci def kenn ci mag ñi ni ko sii dañoo gis nga def yitte ju ci li ngay ñaan lu yàlla doo ñu baaxee la kañ ngay ñaanal yàlla ak lu xew mu ni leen ki may ñaanal yàlla yàllaa ñu boole man ak moom mu ni maag moom ñoo bokk benn maam mu ni waaye bi ma yàlla booleek moom la dindi mbokk gi te jënde ko ak taalibe mu ni te ki may ñaan loolu yàlla pour yàlla may ko doom bu góor man ak moom def nañu ay at waaye musta yëkkat sama sédditu jë loolu yombul mam seer xaaj maa ngi ni sama sédditu jë soxna sa féetu ñag mii may ñaan loolu yàlla musu ko yëkkat mooy musuma merloo moo tax ma ñaan yàlla pour yàlla mayal ma ko doom bu góor mu ni mag ñi nag alhamdulilah ndax bi ñuy ñaan pour doom bu góor ñëw yéen laa woowoon ak man muy juróom-ñetti nit waaye bi ñuy dem ba ñaan gi bëgg a sori Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Chérif ñëw na xayrul bariyati Seyduna Muhammad ñëw na kon ñoom ñaar agsi nañu la ma doon ñaan yàlla yàlla dina ma ko may ci at moomu nag mu sanc Tiwaawan at moomu ci la yàlla def maam Cheikh El Hadji Mansour gane jamono kon mu ngi gane jamono 1900. am na ñu wax sax ni le premier janvier 1900 la gane jamono ci dëkk bii ñuy wax Tiwaawan Tiwaawanu fii hal yumnu lil mutayaamin bi mu ganee jamono baayam dañu lu ma doon wut ci wàllu yàlla yaakaaroon ko ci dëkk bii ma samp tey mu ni dana ma fekk ndax ki judd muy alaaj Mansuur ndax bi mu juddoo dafa indiwaale ndimbalu yàlla kon bu ñu lay laaj keneen Cheikh Alhaaji Mansuur damay nga da ngay dem nga laaj ko dëkk yooyu Tiwaawanan laaj ko Tiwaan gi mu juddoo soo ko munta laaj Tiwaan wa Dakaaran nga ñëw ko Dakar Dakar gii ñu ne maam Cheikh El Hadji Mansour def na fi ay ay ay ay may yu dul jeex lu ne def na ko Dakar lu ne bari na looy gis ndakaaru jëmmam jooju la dakaar dafi doon nekk ak baayam lu bari waxal bindal na boppam sax wax moom fal yaftaxir ahlu dakaari bi maalikin faxral qurayshi bi mafxaril muxtaari bi dakaarikum rufi at lahu raayaatu maalikina wasaaral fadlu shamsha nahaari bindal na boppam wax ci dakaar lu bari wala nga ñëw laaj Dakar keneen cheikhul xaw mi soo munta laaj Dakar kane xaw Xawmi aw gent paate himi wala nga dem laaj ko gent ba la ñuy wax kër paate xewe kër paate xewe yëg nga la fa xew bind na xasida bu mag boo xam ne foofu la ko bindee jëf na fa ay jëf rëy ci wàllu yàlla munoo koo laaj kër paate xewe mu ni aw kawlaxan wakaza demal nga laaj kawlax kane xaw mi wakaza saalum nga dem laaj saalum waaye nga dem laaj jolof jolof nag asluhu mooy asloom mooy cosaanam mag ñi dañ ko tiim di ko tagge kenn ni ko alaaj Mansour mbokkum jolof jolof mu ni jolof am nañu sens kon ndax man ku ma mbokkool sa affaire baax fii baax ëllëg kooku mooy Cheikhul Xaaji Mansour ibnu Cheikh Seydil Xaaji waaw xam nga moom dafa waxoon dafa waxoon baayam dafa am loo xam nag foog ñu delluwaat ci ginnaaw tuuti Cheikhul xaw mi boo ko bëggee xam bu ñu la laajoon kanay Seydil Xaaji Malick nga ni mooy Cheikhul xaw mi tontu bi baax bu buñ la laajoon kanay cheikhul xaw mi nga ne mooy Seydi Hadj Malick ton baax na dafa am benn mag bu ñuy wax mam Ahmed Dem bu soo ko moo bind téere tafsir boobu ñuy wax diyaa na nayi rey ni borom xam-xam piir la mam Ahmed Dem dafa ñëw Tiwaawan seet ci mam Cheikh Seydi Hadj Malick boobu mam Cheikh Hadj suur ci ay ati zahiram bariwul lool su doon jamono beneen nit da nga xale la muy waxtaan ak mam Ahmed Dem ba caag ñu ko Ahmed Dem mu ni ko la béykat mu ni ko xanaa xamoo ni suuf si yàlla bind Seydul Hadj Malick xam nga ku ci ne ci ñun ci suuf lañ la bind minhaa xalaqnaakum wa fiihaa nu'iidukum wa minhaa nuxrijukum taaratan uxraa mu ni ko waaye Ahmed dem xanaa xamoo ni suuf si yàlla binde maam Cheikh Seydou Hadji Malick ba mu desee man Alaaji Mansuur la ca bind bindaatu ci kenn moom day doomu Seydou Hadji Malick waaye boo bëggee noppalu da ngay wax ni day Cheikh Seydou Hadji Malick moom maam Cheikh Seydou Hadji Malick dafa préféré woon ci dundam kenn bañ ko xam xam nga nit ñi da ngay dégg ku naan. sama sëriñ wax na lii sama sëriñ wax na laa dégg nga li bari na looy dégg ñun la sama sëriñ a ko wax wax bi rëy sëriñ ma ko wax bari na koo dégg taalibe bu toog wax bayit ni sama sëriñ nee na nàngam ci lu rëy nga dégg taalibe yi daan nit ñi daan ni mais li mu wax dafa rëy fekk sëriñ ma ko wax maam Cheikh xaaj maa ngi nag bi wax jooju jotee ku ne di wax li li nga am ak li ngay dig sa taalibe bu ëllëgee mag ñi seet si ko ni ko si doo wax mun leen man nag wax duma ci fekk ñu ni ko lu tax mu ni ne course bu départ eggaguñu fa ñuy arrivé nga naan raw naa man alaaj maag du ma ko wax loolu ku sax du ko def mu ni waaye maa ngi leen di xamal ni saw fa tara isan jalal xubaaru tax takk am ximaaru mu ni nañu xaar ba bis ba nga xam ni fa yàlla naan ju départ leen bu ñu déparé mu ni bu boobaa bu pënd bi jógee dañuy xam ku war fas ak ku war mbaam mu ni man Seydil Hadj Malick du ma fi wax nekk di wax naan maay gañ lii wala maa nàngam lii xam lu ma leen wax jaamu leen yàlla topp sunna Seydina Muhammad ba ëllëg mu ni waaye yàlla maa ngi lay ñaan man Cheikh El Hadj Malick li ñëpp di xëccoo du ma fi nekk ci àdduna di ndamu waaye maa ngi lay ñaan bu ëllëgee boo ma koy jox waje alqilaadata jii dii fii ay man alayhi anzalta ayatin karimaati na nga ko jox ka nga xam ne ca loxoom yu teddee nga wàcce woon aaya yu teddee muy alquranul karim na nga ko jox mu jox ma ko kon dalal na xel mu ñaan yàlla nag ni ko maa ngi ñaan bu ma kenn xam ba ma jógee fi loolu la waxoon taawam ba Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu ba muy bëgg a jox sëñ Babacar xilaafa sëñ Babacar dañu ko papa ndax mun ngaa fexe ba kenn du ma xam mu ne ko Babacar man sa baay kenn xamuma mu ne ko papa ñëpp a ngi way njool faama jaxaay lu la tee di xaacooy si lëmbeel Sénégal du ndax yaa yor yaa yore raaya diine yow bàyyi ñëpp a lay way nga xamu la mu ne ko Babacar cin boo ko boo ci sóoree boo ci defee dara tëj ko loo ko tëj tëj tëj dina am lu génn mu ni ko looy ngay dégg ci sama tur man Seydul Xaaj maak mooy loolu di génn waaye man Seydul Xaaj Maalik nitu seen àdduna mënuñu maa xam ëllëg lañ may xam ci kanamu yàlla noonu ñu ñàkke xamee nag kanay Seydul Xaaj Maalik noonu la ñu ñàkke xamee kanay Cheikhul Xawmi Cheikh Xaaj Mantuur kenn du ko xam ndax moog mooy bàyyam ni ko nit ñi ñàkk xamee nag moo tax ñu dem ba jamono mu waxoon ni jamonoo ngi ñëw man alaaj Mansuur sama tur dina génn buy génn nag du maa koy sàkku waaye mu ni jamono dana ko génne bu ko jamono di génne nag mu ni bu boobaa dana nekk loo xam ni képp ku yàlla baaxal nga baax ndax dañuy wax ni mooy sëriñu mag ñi ak ndaw ñi xam yàlla mbaa ñu nar a xam yàlla mu alaaj Mansuur mooy sëriñu mag ñi mag ñi nga xam ni dañoo nekkoon ak maam Cheikh El Hadji Malick Maodo di leen yar di leen defar mag ñooñu nga xam ni ñëpp ko magoon Serigne Babacar si magam rek mag na ko 15 ans fukki at juróom la ko magee ndax Serigne Babacar 1885 la gën a jamono Cheikh El Hadji Mansour 1900 la gën mag ñi am na mag ñoo xam ne ñoo magoon Serigne Babacar si kon ñoo ñoo ko mag foofu ci wàllu yàlla waaye demoon naa dem moom Cheikh El Hadji Mansour ba mag ñooñu nga xam ni mag nañ ko fuuf sukk ci kanamam mu doon seen sëriñ ndax mat na leen ko ndax wa xayru maalikina nag Mansuuru sayyiduhu xoola ku dul maam Cheikh Seydul Xaaji Maalik Cheikh Xaaji Mansour boo dajee moom sa sëriñ la leer na wa xayru maalikina Mansuuru sayduhu ku dul maam Cheikh Seydul Xaaji Maalik Cheikh Xaaji Mansour sa sëriñ la boo xoola nit ku ñuul ak nit ku weex ku dajeek moom te doo bàyyam Seydul Xaaji Maalik sa sëriñ la ni mu doone woon seen sëriñ nag du woon ci alaaj Maalik moo ko jur déedéet dafa doonoon seen sëriñ bile ilmi ci xam-xam soo bëggoon a natt dimension xam-xamu Cheikh El Hadj danga naan ni bàyyam toll ci xam-xam xam nga maam Cheikh El Hadj yéem na ñëpp ci xam-xam ni maam Cheikh El Hadj Maag yéeme àdduna bi ci xam-xam maam Cheikh El Hadj dafa nekk ci suuf bàyyam nëbbatu waaye bu génne woon xam-xamam noonu la yéeme àdduna bi ci xam-xam ndax ki ko jàngal mooy bàyyam dégg nga lool moom jàngiwul fenn falaqad tarabba fii xijri waalidihi moom fi mu yaroo mooy ëttu baayam ku ne nag jàngi nga bis mu yebal benn mbokkam bu ñuy wax sëriñ Moussa Ñang mbokkam la ca Jolof moom sëriñ Moussa yàlla dogal bis maam Cheikh man Mansour ni ko sëñ Moussa demal ma nga seetali ma góoru yàlla bu ñuy wax Seydul Xaaji maa ngi muy bàyyeem mu ni ko boo demee nga sàkkul ma ci moom ni ko na ma bàyyi ma génn mu jox ma ndigal ma génn dem jàngi sëriñ Moussa ñëw ñëw ci maam Cheikh Hadj Malick fekk ko mu toog mu ni ko sama mbokk de Cheikh Hadj Mansour moo ma yónni ci yow maam Cheikh Hadj maa ngi ni ko bismillah mu ni ko nee na day sàkku ci yow ndigal nga jox ko ndigal bàyyi ko mu génn jàngi maam Cheikh Hadj Malick ni tekk ba ci yàgg ni ko Moussa fa qaala lahu acheikhu alxaaji Malick qul ni axiik ni ko musa boo demee nga wax sa mbokk muy Cheikh Hadj Mansour ne ko fal yakun ma'i bi jaani bi nee ko na nekk ak man rek ci sama wàll nga wax ko ni ko yàlla dafa wax ñett yoo xam ni ku mu ne ci yow da nga am xam-xam te daf ko judduwaale bi njëkk mooy wa taqullaha wa yuallimukumullah yàlla nee bu ngeen ma ragalee ma jàngal leen te Cheikh Hadji Mansour dafa judduwaale ragal yàlla ragal yàlla daf ko judduwaale muy benn mu ni ko kon dana am xam-xam mu ni ko ñaareel bi mooy rasulullah dafa wax ni mattaxadallahu waliyan illa wa allamahu yonent bi dafa wax ni yàlla du jël kenn def la wëlli dul def laa jàngal ba nga xam te moom dafa judduwaale wilaaya kon nee ko dina am xam-xam mu ni ko waaye nee ko na toog ak man rek su toogee ak man li fan naa sa xaqiqatal maarufa xataa laa yow tara bii xamul ma koy xamal nit ñi laa koy xamal nit ñi ba dëgg dëgg xam nag ba du waroo ci ñoom xam nga am na sëriñ bu jàng ba bari xam-xam nit ñi war la ndax la ba nga pett wilaaya nga xam-xam am na sëriñ bu amoon cër ci wàllu yàlla nit ñi nax la bàyyam ni ko nit ñi laa koy jàngal ba mu xam nit ñi dëgg-dëgg xam ba du waroo ci ñoom te nga wax ko ni ko insha allahu nag man ak moom ñu ngi ànd ci dars bi lu ma xam man Seydul Xaaji Malick bala may tàqalikook moom dana ko xam mu ni ko doo demee nga ni ko insha allahu wa sa yatawalla taalimahu soo demee nga ni Cheikh Xaaji Mansour nag li ko yàlla defal dafa rëy mooy dafa juddu rek yàlla méngal ko boppam pour jàngalal ko boppam moo tax bis maam Cheikh Alhaaji Malick maam Mansour dafa daragul laxdar yi xam nga laxdar yi téere boobu ñuy wax laxdar yi dalagu ko ci jàng fa foog nga dal lax yi pour jàng yeneen téere xam-xam yi dalagul laxdar yi punkali muqaddamu tariqa bi ay Muhammad Nazif yi punkal yooyu ci tariqa bi bind maam Cheikh Alhaaji Malick lettre mu jugee Maroc ñëw Tiwaawan maam Cheikh Alhaaji Malick jël lettre bi jox ko Cheikh Alhaaji Mansour ni ko liiral ma lettre bi wa yaqra'u rasaayil moo daan liiral baayam ay lettre mu liir lettre bi pare maam Cheikh Xaaj maa ni ko si hakaza loolu rek la wax mu pare maam Cheikh Xaaj maa ni ko tontu ko maam Cheikh Xaaj Mansour ci xelu xalaatam mu jël këyit beneen tontu nag Nadi fi yónnee ko lettre bi bis muy waxtaan ak baayam ba caag bàyyi lan moo tax ma mën a tontu lettre yi nii ma koy tontoo te dalaguma sax lax der yi jàngaguma benn téere xam-xam loolu yëm na ma. maam Cheikh Alxaaj maa ngi ni ko si bu mu la yéem ndax yow ki la jàngal ku mel ni moom daf koo jàngalul dégg nga modestie yow Cheikh Alxaaj Mansour ki la jàngal ku mel ni moom daf koo jàngalul maam Cheikh Alxaaj Mansour ni teg mu ni ko ndax yow si man sa bàyyi Seydou xaaj maa ngi maa la jàngal te man dama daan wër ci borom xam-xam yi di jàng xamaloo cee dégg ñamu doon jànge ci moom daf ko doon làqatoo moom Cheikh Hadj Malick waaye ku mu mës ku ko mës a jàngal jamono dox na ba nga wëlbatiku jàngewaat ci xam-xamu Cheikh Seydil Hadj Malick loolu nag nga yéegi ni yàlla moo ko doon jàngalal boppam ndax taalibe bu dalagul laxdar yi mën a tontu lettre te kenn du la corriger dalagoo benn téere arab kon loolu am na lu xew boobu nag mu nekk ci wetu baayam kook moom baayam a ko jàngal xam-xam kon ilman xam-xam baayam ko jàngal adaban li ñuy tuddee teggin yar mooy yonent bi dafa waxoon rab rabbi fa ahsana ta'dibi donte xaddisu da la mën nañ ci tegtal yàllaa ma yar moo tax mu rafetal yarin wi ma yar yonent bi maam Cheikh El Hadj Malick da ngay yëg ni yàllaa ko defaral boppam waaye maam Cheikh El Hadj Malick moo jël maam Cheikh El Hadj Mansour téye ko ci boppam pour defaral ko boppam muy adaban moo ko moo ko defal li ñuy tuddee it waqaar wa waqaaran mooy wegeel pour nga am nit nit weg nit maam Cheikh mën Mansour li ko yàlla defaloon ci respect respect bu mu ëmbaloon doomu adama wax nañ ni bu musaana toog ci biir néegam di bind su ay nit doon bëri ci néeg bi lu coow li bari bari du leen tere benn bis mag ñi di di yëngatu ci biir néeg bi am kenn ku ni ko si ndax doo def nangam mu ni ko hee eh, gor kenn du ko digal kenn du ko tere gor guy def dara kenn du ko tere bàyyi leen ñu def. kon ku respecté woon boppam la waaye ku respecté woon ku ko yàlla boole loon li ñuy tuddee di wa sakinatan dal ku yàlla mayoon ak dal la moom Cheikh Hadji Mansour waaye wa mu tam jëflante ak doomi aadama yi jëflante bu rafet jëflante ak ay mbokkam jëflante bu rafet danañ ci ñëw jëflante ak boroomam jëflante bu rafet yàlla def ko ko mayoon te bàyyam moo ko jàngal moo ko yar li ñuy tuddee siyaasa siyaasa mooy firi mu muamala mooy firi jëflante bu rafet gars dañuy firi siyaasa politique firiwul politique siyaasa mooy firi jëflante bu rafet jëflante bu rafet loolu bàyyam ak ko yar ba mu mën ko bi ko bàyyam yaree ci ni mu mel nag ndax day bàyyam ci la sàkkoo moom nëbboom nga ci lañ dem ba jamono nag waywu wu siiw woowu ngay dégg mooy bi nga junj te ñépp di ko way moom Cheikh Hadji Mansour bindu ko dañ ko koo way benn naar bu ñuy wax Chérif Hassan moo ko way mu ngi ko ko waye Thiès ci ëtt bu ñuy kër penc mu ñuy wax mu alxaaji Ahmad Baro Njëgéen penc moomu Cheikh Alxaaji Mansour julli na fa ay at jiite ne leen fa it ay at mooy iidul fitri korité lu ko waraloon mooy Tiwaawan Thiès fii la daan woore Dakar su wooree dakaar ba leelatul xaddi Dakar bu xëyee suba ga ci lay jóge dakaar dem Thiès Thiès lay nekk korité Thiès ba tabaskee fa ba ba tabaski di waaj a jot ci lay doo a dem Tiwaawan ndax Cees dafa amoon kër amoon na soxnaam bu fa dëkkoon bu ñuy wax soxna xalimatu kër ga tey ba tey boo demee Cees Eglo kër gaa nga fa waaye avant muy dëkk Eglo mu njëkk dëkk fu ñuy wax Mbambara soo demee Cees laajte Mbambara rond point bi kër gi ci station Total bi kër googu la maam Cheikh El Hadj Mansour njëkk dëkk 1936 la dëkk kër googu ba 51 51 la jënd Eglo tuxu Eglo Eglo boo demee ñetti kër la ko def. benn bi mooy kër gi jigéen ñi di dëkk benn bi mooy kër gi góor ñi di dëkk benn bi mooy daara ji moom noonu la doon dëkk ci kër ñetti kër yooyu nekk ci Aiglon nag 51 la dëkk Aiglon googu ba 57 mu faatu kon yàggu fa diggante 51 ba 57 nag mu ngi jiite jullee it péncim alxaaji Ahmad Njegin booba maam alxaaji Ahmad Baro moom pénc ma waaye doom jafe nekk mooy alxaaji Ahmad Njegin mu jullee fa benn it jàng xutba bi jiite pare jàng xutba bi benn naar bu ñuy wax Chérif Hassan xool ko ba mu yàgg jël big ak këyit daal di bind araftul waraa sharqan wa garban wala ara ka misli fatal mansuuri fi saairil wara iza stabaqa al aqwaamu yowman ilal naar bi moo wax lool moo ne araftul wara xam naa mbindeef yépp man Chérif Hassan sharqan wa garban ñi dëkke penku xam naa leen ñi dëkke sowwu xam naa leen yàlla ko may waaye wala ara musumaa gis ci ñoom mbindeef yooyu ka misli fatal Mansuur yi cam soo xam ne danga mel ni Cheikh Hadji Mansour musuma koo gis te dem naa penku dem naa ba soow waaye gisuma ci mbindeef yàlla yi cam su mel ni Cheikh Hadji Mansour musuma ko gis mu ne isas tabaqal aqwaamu nag yow man ilal ula bu góoru yàlla yi mag yi njëkkalantee mooy rawante guddi yow man bis ilool olaa jëm seen borom am na waxtu woo xam ne góor yàlla dañuy rawante pour dem ci yàlla fa ñuy daje ñoom ñoo ko xam mu ni bu ñu rawantee pour jëm seen borom yekkunu da ngay gis alxaaji Mansour mu seex seydul xaaji Malick mi yekkunu mu nekk imaaman di njiit la ñan lay jiite mu ni lil waraa ñeel mindeefi wal waraa fi yépp da nga leen di gis bu boobaa waraa ah ñu nekk ci ginnaaw Cheikh Alxaaji Mansour moo tax boykat ba waxoon ko ni ko fa yàlla dogalay farataam yoleen tëral fa ay sunnaam mën sóor a doy foofa imaam roy leen jikkoom ya moo ko jar dégg nga wow fa yàlla dogalay farataam yoneen tëral fa ay sunnaam mën sóor moo leen doy foofa imaam roy moo ko jar te doomam ju ñuy wax Serigne Cheikh Tidiane si almaktum bu Serigne nga si wax na lool Serigne Cheikh ca daalee ba mu ko way nee na ko yow Pape Cheikh Hadj Mansour waa fayta daa'iratal ixaatati mughraman bi su man yahuddu daraa'ibal maabudi Serigne Cheikh nee na ko yow Pape Cheikh waa fay te dikk nga yow fan la ñëw mu ne daa'iratal ixaatati fu góor yàlla yi dajale ci palaasu yàlla yi daa'iratul ixaata secret boobu moo ne ci jawhatul kamaal moo tax kenn du ko jàng daw day këpp kenn du dox di ko jàng da ngay toog jàng ko boobu ci nekk nga xam mooy doole ji bërëb la nag ci bërëbu yàlla yi. Serigne Cheikh Tidiane si bu Serigne Babacar nee na papam Cheikh Xaata bi ngay ñëw yow bëggoo woon a ñëw mooy sàkku woo ñëw gi waaye mu raman dañoo sàkku sëg ñëw fa yow mu raman bi su man ci yëkkati ko waaye xam nga lu ma bëgg a wax Serigne Cheikh nee na ko bi nga fa ñëwee yow Ousseynou da ngaa baaje yow Ousseynou da ngaa yëngal yow Pape Serigne yow Pape Cheikh Hadj Mansour mel ni dañ ñu ko si lu mu yëngal mu ni sam Pape Cheikh Hadj Mansour bi mu dikkee yow dafa yëngal. dafa baaje doraa ibal maabuur yi domaine yàlla yëpp Pape Cheikh Hadj Mansour yëngal na ko xoolal domaine bu yàlla am Serigne Cheikh nee na guddeem googu yëngal na ko moom Pape Cheikh Hadj Mansour waaye ku dul moom mosoo ko yëngal kon da yëg ni kooku moo ko wayoon way woowu way woowu nag ba mu ko koy way yàgg na ndax boobu ci dundam la waaye jamono di dox way wi ne fi jamono di dox way wi ne fi jamono di dox way wi ne fi ba yàlla génne turu Cheikh Hadj Mansour ñëpp di way araftul wara tant boo dem ñëpp way araftul wara tijaani di way araftul wara muriti di way araftul wara laayeeni di way araftul wara ñëpp di ko way loolu nag du kenn doole Cheikh Hadji Mansour la yàllay wane noonu ci jamono moo waral loolu xew waaw xam nga jàngaleem boo ciy dem sax doo ñi nga tudd nii see ñu mel ni Pape Cheikh Hadji Malick Maodo yàlla na yàlla yàggal ko dool dolli ko wér ak ay raqam yu tedd yëpp am na génération booy njëkk tudd génération boobu dégg nga ku naan la mag mu naan la maam Cheikh Hadji Malick moo defar sama baay muy maamam te fekk maam Cheikh Hadji Mansour moo defar maamam maam Cheikh Hadji Malick bi muy dem 1922 boobu maam Cheikh Hadji vingt 22 ans la am ñaar fukki at ak ñaar sëriñ bi bu fekkente ni nit kese kese la vingt 22 ans lu mu mën ah na nee ma dara nit nit kese kese 22 ans mënul dara. bi bàyyam di wuy ji boroomam 1922 booba moom maam Cheikh Hadj Mansour 22 ans la am waaye yaayam ji ma wax sànq muy soxna Safiyatu Ñaŋ da doon jigéen ju tedd doon jigéen ju baax sell maam Cheikh soxna Safiyatu Ñaŋ moo jël moo woo maam Cerno idu Nuuru Taal radiyallahu taala anhu ni ko kaay mu ñëw mu boole ko moom Cheikh Hadj Mansour mii ak maam Cheikh Hadj Abdoul Aziz Dabakh Cheybatal Hamdi ak maam Cheikh Xaaji Mouhamadoul Habib ñetti doomi góor yooyu la maam Safiyetou Niang am ak maam Cheikh Xaaji Maalik mu jël leen boole leen ak maam Thierno Saïdou ni Thierno Saïdou balaa benn mag a jaayanteeg Serigne Babacar Sy yóbbul ma sama njaboot yi ñu dem jaayanteeg seen mag Serigne Babacar Sy ñu egg si maam Serigne Babacar toog maam Thierno Saïdou ni ko soxna Safiyetou Niang moo ma yabal nee na balaa kenn jaayanteeg yow raqam yu tedd yii ñooy njëkk a jaayanteeg yow soxna Safiyetou nee na ñi say raq lañu lu la neex def leen. digal leen lu la neex tere leen te alaaji Malick bi muy dem dalaa bàyyi ak ñoom ñuy sa say rax kon say rax ngoog sa fiitu génn na ci kooku defar na kër Maodo sëriñ Babacar Sy ca mbaax moom itam ca yaru ga ak nite ga ak yiw ga daan ni tekk daan ni maam sa fiitu maam Thierno Seydou dëgg la jël naa leen waaye mën suuf man xam naa yow yaay kan sarax yi it xam nañu yow yaay kan Thierno Seydou miy toog xam na yow yaay kan xam maam Thierno Seydou ku xam maam Cheikh Hadj maam Cheikh Hadj Mansour yaramam dafa tàng booba ndaw la ci at maam Thierno Seydou moo ko mag fuuf boobu yaramam dafa tàng maam Thierno Seydou ñëw seet si maam Cheikh Hadj Malick maam Cheikh benn kayfiya ci kayfiyaati ni ko bii damaa bëgg nga dem sotti ko ci aliwoo raxasal ma ko nga dem jox ko Cheikh Hadj Mansour mu sangoo ko ndax yaramam féex maam Thierno Seydou nee na ma dem bind ko ba mu àgg. ma dem di ko yóbbul Cheikh Hadj Mansour maam Cheikh Hadj maa ngi ne ma Seydou kaay ma ñëw mu ni ma wutal ahadiya ni mu toll soo demee nga jox ko mën ziyaara la ko ndax kayfiyaam boobu nga xool kon kanay xaaj Hadj Mansour maam Thierno Seye def ko teel a xam sëriñ Serigne Babacar si magam teel ko xam ay raqam xam ko magi Cheikh Hadj Malick xam ko bi mu ma loolu ba àggal sëriñ Babacar daan ni ko Saïdou man xam naa kanay Mansour yow xam nga ko ay raqam xam nañ ko baayam ba tamit xam na ko sëfeetu mi ko jur di ndeyam xam na ko ni ko si nangul naa la jaayante gi waaye maa ngi lay ñaan sa raq yi yéen a bokk ndey ak nga jël say raq defar leen man Babacar Sy lu ma jur dinaa la ko jox nga defar ko leer na maam Cheikh Xaaji Mansour tàmbalee ci ay raqam muy Mawlana Cheikh Xaaji Abdoul Aziz Dabakh gis nga xasde ba mu ko bind Abdul Aziz a airnil qalba uusika wasiyatan anka tashfi kulla ma fiika fii za zamani alladi amal fasaadu bihi feuille de route bi maam Cheikh Xaaji Abdoul Aziz Dabakh jaar ba mel ni mu mel ci àdduna jullit ak ku jullit ñëpp bëgg ko feuille de route boobu mu yoon woowu mu tege woon Cheikh Xaaji Mansour magam moo ko ci teg noonu la tege raxam Cheikh Xaaji Mahmadul Habib waaye Serigne Babacar ki ki ko yàlla njëkk a may ci jamono muy Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy Jamil mii ci Faas dafa gane jamono xàmmee rek mu jox ko bàyyam Alaaj Mansour wax nañ ni sax bi mu ganee jamono da ko bëggoon tudde tuddee Alaaj Mansour da ko bëgg a tuddee moom Serigne Babacar. maam Cheikh Xaaji Malick baayam ko tu maamam ni ko tuddee ko ko papa bàyyi mu ko alaaj Mansour mu ni ko tuddee ko yonent bi bu ñëwee ko moo tax taawam mooy Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Jamil mii ci Faas muy Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour borom daara yi dafa extrait mu tuddee ko Cheikh Xaaji moo tax maam sëñ Mansour meloon ni mu mel kon bi mu ko ko tuddi sëñ Mansour juddit mu jox ko ko ku moom ba noppi dootu jeex ku war ci ñay xeeb na gëlëm ku aw fasaaxa yëpp ku dër adduna jeex na ba ni taraas akum lëndëm ku dee tiraas ku mel ni Mansoor ci palaas dootoo ko gis njëkkër sa ñu baax ñëpp ngi yuux ngir weer wu mat do dafa suux jantu nga ne ma nee na mariix ku jooy nit gis lu jar ana soppay Mansoori acca ñu baax ñëpp ngi yuux ngir weer wu mat dafa suux jantu ngëneel ba nee na ku jooyut gis lu ko jar aduna jeex na ba ni taraas akuk lëndëm ku dee tiraas ku mel ni Mansour ci palaas dootu ku gis njëkkeel sa kër miskin yi nu xalaas nun fu nuy te ay palaas mu jël Serigne Cheikh Tidiane moom Serigne Babacar si jox ko Serigne Cheikh jaar na ci loxoom Pape Cheikh Pape Cheikh Hadj Mansour léegi nag gannaaw loolu nag ci la génération yi di ñëw ci moom ngay dégg mag ñu baree baree bari jaar nañ ci loxoom mu jàngal leen yar leen lu tax yàlla mayoon ko loolu nag mooy dafa waxoon moom waxal boppam moom yi Hadj Mansour wax ni waqad raada cheikhi qablu qalbi fa falaanat li dawraatil xutuubil mafaasilu wa zawadanii diinan wa dunyan kifaayatan fa ahmadu rabbillaha is huwa waasilu dafa wax ni waqad raada tàggat na ma cheikhi sama sëriñ ba di sama bàyyi Seex Seydi Hajji Maalik murabbiyan yamutul tàggat ma rek waaye murabbiyan daf ma yar defar ma ba faqad laanat li dawraatil xutuubil mafaasil nee na dafa nooyal moom maam Cheikh Xaj Maam ñu ni ko lan la nooyal mu ni samay articulation la nooyal samay articulation moo nooy ci jaamu yàlla samay articulation moo nooy ci wàcc loolu tarbiya boobu la defaloon maam Cheikh la defaloon maam Cheikh Xaaji Abdul Aziz Dabaax ba maam Abdou ni toll ci àdduna moo la gën a wàcc waaye tarbiya boobu mooy faxat laanat li dawlaatul xutub mafaasilu secret boobu la defal doomam jii fi nekk tey muy Serigne Babacar Sy Mouhamadoul Mansour xalifa général Tidiane Serigne bi xalifa bu ñëpp di xaar nga ñëw toog ci suuf fa laanat li dawraatul xutubil mafaasilu moo tax xalifa bu ñëpp di xaar tey boo woon nag moom nii man bu ma jàkkaarloo nag moom nii sañu ma koo xalifa bi li tax wàcc googu mu am mu mën ko am mooy fa laanat li dawraatul xutubil mafaasilu loolu nag maamam maam Cheikh Seydul Xaaj maa moo ko defaloon maam Cheikh Xaaji Mansour maam Cheikh Xaaji Mansour baayam defal ko ko noonu la maam Cheikh Xaaji Abdul Aziz Dabakh def ay doomam ba ñoom ñëpp ñu moq. loolooy nit bala nga koy jox cër da koy moqal noonu nag loolu ko baayam defaloon loolu la fay bor yi moom bor ba la fay mooy jël ay doomam doomi maamam ay doomi baayam mooy doom yi nga xam ne ay mbokk ma leen jur Serigne Babacar ñi mu jur Alaaji Mansour yar leen defar leen jël ñépp yar leen ay raqam boppam yi nga xam ne baay ma leen jur dem bàyyi ay kofi mu defar leen mag ñi doon ñëw ci moom mu yar leen Cheikh Sidi Mouhamed Moustapha Jamil moom rek laa xam xamul kenn noonu nag la jàppe mag ñi génération par génération di leen defar ba tax na tey boo tuddee Cheikh Hadji Mansour ci mag mu jaar ci moom day jooy xamal tax muy jooy benn mag moo xam ne Cheikh Hadji Mansour a ko yar jigéenam a ko jur muy alxaaji Maxtaar Jóob soxna Asiyetu si Maalik moo ko jur soxna Asiyetu ak Cheikh Hadji Mansour ñoo bokk ndey ak baay soxna Asiyetu moomu Baye maxtaar Diop wax na ma ni ma yaayam nee na ko maxtaar mu ni ko la bayka mu ni ko sa ndijaay alaaji Mansour mag naa ko ba mu daan naa ko boot sama digg ginnaaw waaye soo ma laajee ci ndawam dara munuma laa nettali ci sa ndawu ma ndijaay Cheikh Hadji Mansour dara xawma ci ndawam dara xam nga lu tax dafa judd rek kàllaf xawma dara ci ndawam ndax dafa judd rek kàllaf mag ñooñu nag nga xam ne yar na leen xam nga Pape Makhtar lu ma daan wax yéen amu leen sens. ma ne ko tax mun ma bu ngeen dajewoon ak seen maam Cheikh xaaj Hadji Mansour fi ngeen toog la leen di defar ngeen baax dem da daan dafa taxaw ma toog mag ñi toog mu ni leen defar yomb na mag ñi ni ko si defar nit yombul mun leen wax ngeen dëgg dafa nit yombul waaye man sel El Hadji Mansour yàlla may na ma ci cër bu mayul kenn mag ñi tekk mun leen sëgg ci suuf tibb suuf siggi loolu yomb na ñu ne waaw mu ni defar nit ku yàqu ba mu baax moo ma gën a yomb loolu waxuma ma fekk nit ku baax de. fekk nit ku yàqu ba ay mbokkam amatuñ ci moom yaakaar kenn amatul ci kooku yaakaar alaaj Mansuur nee na ma defar ko ci saase mu baax sëgg for suuf moo ma gën a yomb loolu moo tax nag mag ñi jaar ci moom lim leen doon defal ci wàllu yàlla loolu la ñu gisatul ci àdduna ku leen koy defal moo tax boo tuddee tur alaaj Mansuur ñu jooy waaw kay ñaari bërëb yooyu nag su ma doon wax li fi xew moom buñ ci tàmbali woon incha allah ba émission bi tàmbalee ba léegi su ma doon wax yi xew ci ñaari bërëb yooyu duñ ko jeexal bu ci ne benn rek laa ci jël bu ci ne benn jagsaaw bàyyi ma ko sanc 1904 4 mu tolloo ak bi Maulana Cheikh Hadji Abdoul Aziz Dabakh Cheybatul Hamdi di gane jamono mooy 1904 maam Cheikh Hadji Mansour wax naa la dëkk bi mu maaseel mooy Tiwaawan waaye maam Cheikh Hadji Abdoul Aziz Dabakh moo maaseel jagsaaw moo seen bàyyi Seydi Hadji Maalik daan wax naan sama ñaari dëkk yii. maaseeg sama ñaari doom yi mu ni bàyyi leen dëkk xel bàyyi doom yi xel jag saaw ak alaaji abdu ñoo maase ba leen jag saaw xel ba leen abdu xel tiwaawan ak Mansour a maase ba leen tiwaan xel ba loon mën ba loon Mansour xel la mu doon wax ñëwul jag saaw maam Cheikh Hadj Malick moo ko sanc 1904 doon fa nekkal boppam bi mu demee gannaaw gi maam Cheikh Hadj Mansour bari na mag mu dimbali jag saaw la la dimbali waaye jag saaw leen nag laa koy wax mooy néeg ba ngay dégg ñu naan la maam Cheikh Hadj Mansour daf ca dëkk daf ko dëkke woon fii ñu toog am na toiture néeg ba mu dëkkoon jagsaaw amul woon toiture dara tiimu ko woon dañ ko wërale woon rek ci kaw dara tiimu ko suy taw alaaj Mansour a ci biir néeg bi su naajee mu ngi ci biir néeg bi du génn te dara tiimul néeg bi te taw du dugg naaj du dugg lu ko lu ko keraloon amul woon toiture taw du dugg naaj du dugg booba may wax ma fa nekk ak doomam doom doomam jooju ñuy wax Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy Jamil jagsaaw googu la nekk ci wàllu yàlla di fa jaamu yàlla moom su daan wedd ñaari kurus la daan yor moom ñaari su Cheikh Hadj Mansour ñaar benn fii benn fii su nee tag ci ñaari kurus yi dalandoo ñaari per yi su dalandoo per bu ci ne ak lam cay wax bokkul ak la muy wax fii te ay limi lim la cay wax doo ko avancé kon lam doon werde kenn mënu ko werde ba mu nekkee jeg saw ci néeg boobu jekki-jeg ba caagu benn guddi mu toog ba benn heure jot ci guddi gi xam nga di ne lay bi dina dugg waaye néeg bi dara du dugg kon am na lu ko tiim lu nit ñi gisu mu toog benn guddi rek mel ni dafa xam li xew daan ni heure bii ñu toll ci la yàllay wàcc kaw suuf ba asamaan bii ñu tiim naan xëllil mustaghfirin xëlli saailiin kan mooy jéggalu tey man yàlla ma jéggal ko kuy laaj man yàlla ma jox ko maam Cheikh Hadji Mansour ni dama xool xool waaye yëg naa ni jaww ji kenn yënguwul mu génnal boppam ci biti di dox di yuuxu naan ayaa rijaalallaahi hubbu alaysa si wallaahi rabboo lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimmaa tuhibbu loolu doon wax ca jag saam xam nga mooy lan ay yéen góoru yàlla yi jug leen ay yéen góoru yàlla ay yaari jàll ay hubbu alay sa si wallaahi rabbu ndax dangeen a gis leneen lu dul yàlla seen borom ba tax ngeen nekk ci mu ni leen lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimmaa tuhibbu yàlla du leen jox li ngeen bëgg lu dul fii ngeen toll da ngeen a jox yàlla li ngeen gën a bëgg te mooy seen nelaw yi jug leen ngeen jox ko yàlla di wedd loolu ca jagsaaw di ko wax di ko wax foofu ca jagsaaw fa la ne ca néeg bu amul toiture boobu su tawee taw du dugg bu naajee naaj du dugg foofu ca jagsaaw fa la defaree doomam ñu ñuy wax Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil dafa taw ba ci àgg daan ni ay na Moustapha ay na Moustapha Seydi Jamil ni ko papa maa ngi nii mu ni ko foone mu ni ko maa ngi jagsaaw mu ni ko yow ma yóbbu la fu yàq àggul nga naan ma maa ngi jagsaaw kon moom foofu la ko defaree loolu laa lay wax ci jagsaaw ñu wàcc nag ci kër Paate Xewe kër Paate Xewe mu ngi nekk fii rek ci wetu nooto dëkk bu bu dëkk bu ñuy wax guy jamaan boo fa demee. da ngay jàdd sa ndejoor daw ay kilomètres foofu la kër paate xewe ne ko dem nag waaw yombuta dem ndax dëkk bi ñuy wax kër paate xewe boo demee kër paate xewe ci boppam foog nga dawaat nangami kilomètres pour doog a egg ci tool bi waa dëkk ba moom ba fii ma toll ba ilaa naa haasa duñ fooy tool ba xamul tax tool ba dafa am benn dex gu fa nekk ba léegi dex gaa nga fa dex gi rab la woon rab dex gi nee nañu chaque six mois bu ne jigéen ju gën a rafet ci tund woowu daan nga dox bëccëg dem dugg ci dex gi jasiti lekk la force da ngay ñëw ay nag nag bu traversé wet googu boo demee dex gi da lay récupérer jasiti lekk la parce que dex gi rab la woon mag ñi daje ci gàttal yëkkati tool bi jox ko Cheikh Hadji Mansour mu xool ko ba moomeelu kenn nekku ci mu dem war a liggéey tool bi bi mu ko war a liggéey am na mag ñu ni Cheikh Hadji Mansour est-ce que tàqalikuwul ak sagoom ndax tool ba lañ doon wax toolu bay dee am na ñu fa liggéey dee fa mu dem jël tool bi moom moom Cheikh Hadji Mansour bi mu jëlee tool bi war a liggéey tool bi am ay mag ñu ko wax mu ni leen ndax tool bi dafa am kenn ku nekk ci tool ba ku yàlla ñu ni ko si yàlla rek a fa ne mu ni ndax nit ay lor wala yàllaay lor ñu ni ko si nit du lor jinne du lor yàlla mooy lor ci dogalam ak lu lor nit yàlla la maam Cheikh Hadji Mansour ni kon bàyyi leen ma dem ci tool bi su ma demee su ma fa fekkee yàlla man fu yàlla ne falaay ne ma fekkul yàlla nag leneen lu fa ne te doo yàlla da ngay nangoo doon jullit rek ànd ak man wala ma jëlee la fa ci la dem ci tool bi liggéey ko bay tool ba tool bi ñor bi tool bi ñoree mag ñépp ñëw di ko seet si ci kéemaan gi mu def mu xëy jox leen xasida daaliya boobu muy afil basitati gayrallahi maabudu bil xaqi am fi sama lil gayri mawjudu loolu mooy dafa laaj afil basitati ndax dafa nekk ci ndend bi maabudu ku ñuy jaamu xayra laay ku dul yàlla ñu ni tekk mu ni am fi samaan wala dafa ne ci kaw asamaan lil xayri mawjudu keneen koo xam dañ ko fay jaamu ku dul ko déer mu ni kon yàllaa ne ci ne ci suuf mu ni mën mën sóor lii lu may dal yàllaa ma koy teg waaye ku dul yàlla foo nekk loo fa nar a lor jaam ñi ma jëlee la fa ci la bay tool bi ba tool bi ñor mu bind xasida boobu wax ko ca ca biir tool boobu nag fa la toog benn sëngalu ñax bu ñu ko fa defaloon sëngalu ñax bi néegu ñax la woon mu nekkoon fa mu toog ba benn xaaju benn bëccëg mag ñi bay ci tool bi góor gu ñuy wax góor gi bajee gaajo boo demee dëkk kër paate xewee famille gaajo bi dañ fa bari góor gu ñuy góor gi bajee gaajo nee nag ñuy bay ba bëccëg mu dawal bëtam ci tool bi gisatul seexul xaw mi moom nag yàlla daf ko mayoon la yonent bi amoon maam Cheikh Hadji Mansour mbooloo moo mës a séen ñu toog bu ca toogee boo tëlee moom ngay njëkk seen buy dox di ñëw ak ñu mu mën a àndal moom ngay njëkk seen moom Cheikh Hadji Mansour loolu yéen tamit daf ko amoon moom yàlla daf ko ko defaloon góor gi ba nee na ma xool tool bi xool xool gisuma alaaj Mansuur ma xool xool gisuma ko ma ne kon xaaral ma dugg ci sëngalu ñax bi nee na ma ñëw ci sëngalu ñax bi wéer sama gopp ci bunt bi di dugg pour xool Cheikh El mën Mansour neen damaa teg sama tànk gis seel xaaj Hadj Mansour tëdd moom na daan tëdd soonu daawul nelaw nag moom ay nelaw bariwul woon nee na ñu mus na tawat benn bis mu tawat ñu yet benn médecin médecin bi ñëw xool ko daan ni fii mu toll pour mu wér li ko dal foog mu nelaw quatre heures de temps su nelawee quatre de temps wér mag ñi wax ko ko mu ni kon du ma wér ndax sama dund mosuma cee nelaw quatre heures de temps kon ñaata la daan nelaw mu ni du ma wér ndax mosuma nelaw quatre heures de temps sama dund mu toog nii ci cëngalu ñax bi wéer nii loxoom góor gi bëjee gaajo nee na ma xool Cheikh Hadji suur gis jaan ju ñuul kukk ngan du lool tëdd ci wetam boo gisoon mu tëdd sa wetu sëriñ xanaa da ngay da ngay jug rey jàng góor gi baje nee na ma génnaat ci biti jël sama gopp ñëw xàcc pour dóor ko jaan ji ci kër paati xewee Cheikh Alhaaji Mansour daal di may xool ni ma baje ma ne ko la bayk mun ma baal jàmbur yéen nit ñi ma topp li ngeen gis ci man ba tax ngeen may topp jaan ji tëdd loolu la gis ci man ba tax mooy topp loolu ma ngi ko defe woon ci kër paati kooku mooy Cheikh Alhaaji Mansour ibnu Cheikh Seydi Hadji ma waaw kon nag ñu ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala moom Cheikh Hadj Mansour yàlla na yàlla yokk leeram yàlla na yàlla taas ñu ci barkeem ba tey may wax ak yow fee mu tëdd ci ginnaaw baayam fee ku fa dem toog ziyaar baayam ziyaara ko soo ñaanee yàlla say aajo yàlla fajal la ko am na sama benn koo xam ne bàyyi la ci man nee na ma da daan def saa yu demee toog ziyaar maam Cheikh Seydi Hadj Maag bu paree jug dem nee na benn bis mu tëdd guddi ziyaar maam Cheikh Hadj Maag tëdd guddi maam Cheikh El suur fee ñu ko ni ko diw mu ni ko labbayka mu ni ko boo ñëwatee ziar sama baay de ma ziaraale man Mansour fi ngay ziar maag sama baay fi ne kon ñu ñaan yàlla yàlla yàlla yokk leeram yàlla na ci barkeem li ko yàlla defaloon ci may ak defaru defaru ak defare yàlla nañ ci dugal képp ko ko sopp yàlla na nga defaru kër gii ñu toog di kër Cheikh El Hadj Mansour ñu ñaanal yàlla njaboot gi fi ne muy Aline Racine li ak njaboot gi mu fi nekkal yàlla yokk ko lii yàlla na ko yàlla def ay société yu bare baree bari ci réew bi ci barke Cheikh Hadj Mansour ndax moom Aline Racine li damay wax bis bu ne ni bu ko yàlla joxee ay milliards yàlla jox na njabootu Cheikh Hadj Mansour ay milliards. bu ko yàlla joxee ay milliards jox na ko njabootu Cheikh Hadj Maag kon yàlla na ko yàlla jox te mu ànd ak wér ak gudd fan ci barke maamam Cheikh Hadj Mansour nuyu teel suñu télé bopp muy. Ovision Ovision ziyaara leen bu baax ñoom itam ñaan yàlla télé bi yàlla na yàlla yëkkati ko. yàlla na yàlla ubbi ko yàlla yàlla barkeel ko ba mu bokk ci télé yi gën a mag ci àdduna bi ci barke Cheikh Hadj Mansour Hadj Ndiaga ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu imam Mouhamadul Bachir ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy seetaan ñëpp ñaanalaat yàlla bu baax xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour yàlla mu yàlla na ko yàlla dolli wér yàlla na ko yàlla dolli sàmm yàlla na ko yàlla dolli tawfiq waaye yàlla dolli ko may ko fekke ak tal ba lii nga xam ne moo ne suñu kanam muy jumaa ji yàlla na yàlla may may ko kàttan bu mu ko àggalee may ko fekke gi ak tal gi bu ko àggalee incha allah yàlla na ci julli ay at ñu ànd kook moom yeneen yi mu bëgg sumb it mu sumb ko yàlla àggale ko ñu ànd kook moom ci barke baayam Cheikh Alhaaji Mansour mi ñu doon waxtaanee barke maam Cheikh Seydil Haaji Malick wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ku waat ci ñay xeeb na gëlëm ku aw fasaaxa ku dër adduna jeex na ba ni taraas akum lëndëm ku deeti raas ku mel ni Mansoor ci palaas dootoo ko gis njëkkër sa ñu baax ñëpp ngi yuux ngir weer wu mat do dafa suux jantu nga ne ma nee na mariix ku jooy nit gis lu ko jar ana soppay Mansoori acca ñu baax ñëpp ngi yuux ngir weer wu mat dafa suux jantu ngëneel ba nee mariix ku jooyut gis lu ko jar aduna jeex na ba ni taraas akuk lëndëm ku dee tiraas ku mel ni Mansour ci palaas dootu ku gis njëkkeel sa miskin yi nee nu xalaas nun fu nuy jëleeti ay palaas bu ñuy seetal déet